rahmaani rahim ñoo dellusiwaat ci sunu téere bii di masaalikul jinaan ñu ngi ci sunu bindu juróom-benneel ñu war a tàmbale ci wala yasuddaka anil qabuli kawni qafiral baa'i fi baljili sama bind bi weesu sëriñ bi leeraloon na méthode bi nga xam ne nii ci la tëralee téere bi mooy doxalinu téere bi wala tëralin bi ginnaaw dafa nekk téere boo xam ne nii dafa dajale mboolem xeeti xam-xam yi nga xam ne nii borom xam-xame tasawuf bi taalifoon nañ ko ci seeni téere am yum ca gën a cité tudd seeni tur lu mel ni sahab ak lu mel ni xaatimatu tasawuf bu Muhammadul Yadaali yi defoon lu mel ni Ihya ul Ulum bu Imaamul Ghazali lu mel ni Junnatul Murid bi nga xam ne Cheikhul Karim moo ko defoon ci nag ak boo xam ne képp koy wax ci xam-xam war bàyyi xel loolu mooy boo indee ci sa biiri kàddu wala ci sa biiri téere loo xam ne nii dang ko jëlé ci kenen ko dur yaw nga léral ne lola, ci du sangam la ko jëlee wala ci téré sangam la ko jëlee bu dee sa xalaati bop la wala sa tëralinu bop nga né li nak man sama xalaati bop la wala sama tëralinu bop la loola léral nañ ko ci sunu bind bi wessu nim ko tëralee ci téere bi moy dafa ne su ngeen déggee ma tuddu qala moy waxna ta waxuma ki wax kum don mana indiwuma aw turam waxna rek la wax xam na ni dam dammiir gi dama ko nëbbu xam leen ne kon wax jooja imaamul Ghazali moo ko wax loolu leer na mu teg ci keneen ku dul imaamul Ghazali su ma indee ay waxam ci téere bi danaa tudd tuuru kooka ba mu leer loola leer na waaye nag mu ne su ngeen déggee ma jëfandikoo baatu kultu te li muy firi mooy wax naa kon xamal ne ginnaaw bu ma dégloo ñoom ñooña seeni wax ba noppi la ma ca déggee ci ay maana loolu laa indi wax ca la cay sama xalaat mooy fa min maani qawlihim naqaltu mu ne ginnaaw nag nii laa ko tëralee kon na nga rafet njortu ci ne téere bi lépp loo ci gis rek wér na su boobaa kon na ko wéral saxal ko te rafetal ci sa ndor ci sa njort loolu mooy sunu bindu barki demu bi fiñ ci yewon tay nak mu bëgg léralat ne téré bi di masalikul jinan yow mi ko bëgg jang ma ngi lay dénk nga góorgóorlu ci bul deddu téré bi bañ koy jang ngir lan ngir man mii def ko kat samay guddul ci jamono bi ñu nekk cag gudd mooy booba képp ku bëgg xam-xam da wër ci réew mi ba génn sax bitim réew ñaare fenn fa ne nga dem fa téere bu ni nga jàng ko boo ñëwee ñu door laa reconnaître jàppee la ku bari xam-xam sëriñ bi nag mën a man samay jéego guddul moo xam ci biir réew mi wala ci bitim réew waxoon nañ fi jaar ci am njàngam ak ñi ko jàngal kon jotul dem ci barab yu sori mu ne loolu nag bu mu tee nga ne waa ji kon xam-xamam guddul wala bariwul wala yaatuwul ba tax mu war a mën a taalif ab téere bu mel nii mu ne loolu bu mu tee nga jàng téere bi bu mu tax nga dëdd ko itam bañ koo xool wala bañ koo nangu bul xool itam ne téere bii ki ko def nit ku ñuul la doon gi ma doon nit ku ñuul ndax booba itam néew na ñu mën a reconnaître nit ku ñuul ci xam-xamam bu war a mën a yegg sax ci muy taalif ab téere bu mel nii ba tax na ñu bari mën nañoo bañ a jàng téere bi ngir ki ko def nit ku ñuul la mu ne loola it bum la tax dëddu téere bi ba bañ koo jàng jàngal rek te xool ndax kat euh, mu ne képp koo xam ne ñu lay nga yàlla buñ koy wax sag ragal yàlla tax kon ñi gën a tedd fa suñ borom subhanahu wa taala ci jaami suñ borom yi mooy ñi nga xam ne ñoo ci ëpp ak ragal yàlla te loolu suñ borom subhanahu wa taala wax na ko ci alquranu karim inna akramakum indallahi atqaakum mu kon gannaaw yëf yi la nekk ci ragal yàlla rek la nekk ah yow xoolal rek ba xam bu fekkee gis nga téere bii ne ki ko def ko ragal yàlla la nga xam ne kon li ma ciy ut yëpp mi ngi ci te nag wax dëgg yàlla ki ut ki def téere bi moom amul ko ko gën a ragal yàlla loo tax kon mu ne ñuul yaram maanaam yor der bu ñuul du waral nit ki di ñaaw ak dégg wala xel mi di des loolu tënkuwul ci yaram wu ñuul kon nag woy wii ma woy muy masaalikul jinaan maa ngi lay dénk itam ba tey bul xol ne man mi ko def li ma ci wax nekuma ci ba tax nga ne kon duma ko def duma ko la duma ko top duma ko jang loolu yóbbu ci su nek jangal rek te bul jeli tam nga lu sun borom subhanahu wa taala ya nga xamne da ko daan may gaay yu jek ya nga jaglel ko ñooñu rek defena ñom rek ñoko jabo ñu mujj ni waratu ñu mëna am ci ngeneel yoyaa mu ne loolu boo ko defee ak la ndax léeg-léeg suñ borom subhaanahu wa taala may jëmm joo xam ne nii ci jamono jëmm ji la ñëw loo xam ne nii mayu ko ñu jiitu woon te loola nekkoon lu jafe loola nag mu misaal ko ci ab taw taw ñaari façon taw moo am am na taw boo xam ne nii wis-wisal rek am na nag boo xam ne ni day riddi ngelaw li xiin yu jóg mu sotti waame wu bare bare bare bare bare bare boo xur yi fees dell ak ndox àll bi naat ñaari taw yooyu nag léeg-léeg taw bi nga xam ne nii mooy wis-wisal bi mën naa njëkk tàmbalee taw ba ñëpp jàpp ne Euh, liñ bëgg dana am mu visualiser tuuti rek bàyyiwaat waaye nag taw bu mag bi nga xam ne ni mooy feesal xur yi moom itam mën naa mujjee ñëw waaye nag mooy tax nit ñi mën a ji seeni jiw mooy mën a ñoral itam tool yi bañ mën a jëfandikoo liñ doon bàyyi doonte bii moo mujj it moo indi xéewal gi donte balee njëkk it daanaka jëriñul dara kon jiitu gi ak mujj gi amut solo li am solo rek mooy li suñ borom subhanahu wa taala dogal nga nangu ko moo tax kon gis nga téere bi ci nii la ko sëriñ bi tërale loolu lañ doon leeral rek ci sunu bindub tay bi su ko defee kon ñu ñëw ci prix mi mu ne wala yasuddaka bum la ko dëdduloo xanil xabooli walif nangu ga kaw ni sama nekk xasiral baaxi di aji gàtt ji jeego fii sa jili ci gile maas wala yasuddaka bum la ko dëdduloo ma dal asmaani diirub jamono xan ax si xii walif ak jàppam kaw nii ngir sama nekk mina suudaani bokk ci nit ñu ñuul ñi is ngir akramul ibaadi ki gën a tedd ci jaam yi indallaahi fa yàlla ak sarohum mooy ñi ci ëpp taqawan ak ragal yàlla bi reste bàyyi ci loolu lënt kon ndax kat fa laysa yujubu dédd waral sawadul jismi nuru yaram safahatal fata desek camsi wa suu al fahmi ak ñaawu deg mune ne bu mu la dëddaloo tere bi olif nga diko nangu ngir nek gi ma nek ni ko gatti jeego ci jamono bi bu mu la dëddaloo tere bi rub jamono ngir don gi ma don nit ku ñuul ba nga baña japp tere bi ndax ñi gëna tedd ci jami suñu borom subhanahu wa ta'ala moy ñi ci ëpp ak ragal yalla ñuuloo yaram du waral nit ki me di dese wala muy ñaaw ak digg loolu tënkuwut foofu mu ne walaata bayyi nasmi nasmiya sama way wi di masal ko jinan ya nabi ya ci xila ya yaa dem ittibaay ngir ñak top ma la nga akul wax ko bul ñak top sama téere bi ngir man mii di ko wax lima ci wax lima ci wax nekuma ci top ma lima wax nekuma ci lolu bu mu tax yow nga bayiko defal rek lolu da ko wax rek ngir xoyofalee ko waaye sëñ moom du digle lenn loo xam ne duul ma ci jiitu mu ngoog wala tuqassis bul jagleel fadlu rabbin gëneelug sunu borom xatan laa boobu kawe na bi si taqaddumin ñeel ñi jiitu woon rek faqat dong aw loolu boo ko defee fa tacala da réer lu tax mooy is ngir rubbama uri bariwaana ba waneef na fatan as cam mu axaraa ku yéexe ku nu yéexe maa loo xam ne raaba fàdd woon na am man xawluhoo ci ñu ko jëkk waxan suraate jëfe woon ngir kat léeg-léeg mu ne bul jël ngërëlu suñu borom rek jagleel ko ñu jiitu woon boo ko defee da ngay réer ndax léeg-léeg suñu borom subhaanahu wa taala mën naa maye walla mu wane wala mu joxe jox ko xam ne ni ku yéex a dikk la loo xam ne nii jëfe woon nañ ña ko jiitu woon wa ilaa sax mënuñ ko woon a am. mu misaal ko ci ni ma ko waxoon léegi ci ab taw moo tax mu ne fa mesey xad yab daw mu jiitu amamal wabli kanam waame wa waaye nag wal fadlu la gën dëgg li waabi li ñeel na waame laa li tali dee di ñeel mesey ma nee na misaal mi mooy euh, taw boobu ñu tuddee tàll te mooy mesey ñu koy tuddee ñeppi ñeppal wala wis wisal mën naa am mu njëkk tàmbali jiitu taw bi ñu tuddee waame taw bi ñu tuddee euh, tàll taw bi ñu tuddee waame mooy wabb la waaye mu nag ngeneen la dëgg ñu ngi koy séentu ca taw ba ñu tuddee waabil te mooy waame wa waaye séentuwuñ ko ci bu ñu tuddee mesey mooy appal la way wii boo demee ci maxaamaatul xariir yi ñëw na ci waaye sëñ bi da ko indi fii ngir misaalee ko lii may wax kon ñu ngi tënk foofu sunu bindu tay ba desewaat incha allahu taala ci bindu juróom-ñaareel bi waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu.